dugg sax laa naroon de mbër man de gëj naa la gis nga solo nii. non damay entraînement ñun lu lay solo di dem entraînement loolu. Ah, dem tey entraînement. ah si école lañ ah, man ma bëggoon nga sol jasneer wala sol <laughs> bu jotee tenue la ñuy sol bu war a sol jasneer nañ sol jasneer bu jee jar aja nañ dem. kon école ba daal waaw dafa leer mu ngay taal otoom de. xanaa dañuy duggandoo ci oto bi. bëree tey nag moom. donc xam nga loolu sax boo xam nga loolu sax jërëjëf. déedéet. waaw léegi nag. macha allah wàcceel sa ndigli xaadim xaadim lay ziar ñu ngi lay ziar ba sant yàlla bu baax mel ni tey dañ leen fekk si école bi ngeen daan entraîné di ñu ngi si école bi di entraîné si kàttanu suñu borom école bi moo tudd nan fii mooy école li di Boy waaw mais turu école bi rek moom jarul wax waaw ndaxte gars yi moom gars yi yaa ma gën a xam. <laughs> yéen a ngi seen école daal di liggéey seen liggéey. waaw uh-huh. la ñuy def lamb la ñu nekk. mu mel ni fan yi dama am lu ma seetlu ci seen digganteeg Balla Gaye nit ñaa ngi ci doon coow ñu ngi koy dox ñu doxuñu ko yow fan yi nga génne combat bi ñu ngi koy dox yónnee nañ ci yaw waaw mais ñun ñu ngi ñaanal mbër yëpp mbër yëpp suñu doom lañu ñu ngi ñaanal ñëpp am jàmm am salaam waaw yàlla may leen luñ tere seen waajur waaw di gërëm. ancien lutteur yëpp di gërëm euh, group bi Moustapha Guèye jiite ma bokk ci Mansour Diop bokk ci keneen ak keneen bokk ci ah, muy les sages ñu ngi lay gërëm di gërëm ñu nekk si kaw ñu nekki si senegal yëpp di ñaan si réew mi jàmm waaw di ñaan si rek Macky Sall mooy président de la république yërmande lay dawal waaw ñun làmb lañu am waaw promoteur bu jóg di dimbali làmb bu ñu ko téye muy Luc Nicolaï nañ ko bàyyi waaw nañ ko bàyyi ñu ngi ñaan sujet ak procureur yëpp àddina fii jégalante moo fi am ñun suñu maam lañ lay xamoon Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul dafa jégaloon ay noonam waaw nañu jégal Luc Nicolaï bàyyi ko mu doxal làmb ji buñ ko jàppee jàpp keneen xale yi Petit Mbaye dem na kon foofu xale yi jëm ah nañu si suñu làmb ji parce que làmb ji mooy cosaan ñun moomuñu football moomuñu karaté ñu judo te Macky Sall nag xam ne ñiy xeex làmb ji bari na te ñi koy xeem ñëpp mooy defe nañ ay intellectuels lañu euh, jéggi nañ seen cosaan dem nañ fekk tubaab bi seen cosaan te loolu di suñu cosaan football di suñu cosaan moomuñu ko ñun li ñu moom mooy làmb nañ ñu ko jàppale ngir yàlla ak yonent bi jàppale suñu làmb ji waaw ministre yi rek ak ak ak président de la république la ñu wax lamb lañu am moom xam ne làmb la am waxoon na ko bu muy débuté bi ko Moustapha Gueye di interroger lamb la ñu am nañ ñu dimbali bàyyi ñoog suñu promoteur yi ñu tëgg suñu lamb ji waaw tëgg na euh, euh, ama ama Modou ah joxe xaalisam ñu arrêté ko mais lan la ko lamb ji di bu fekkee promoteur bu génne xaalisam ñu jàpp la wala ku ku def ñu defal yaa ngi ay millions de laaj boo ko jógee ah te ñoom ñoom ñu ne ministre ñu ngi ay milliards te génnuñu ñu ko def ci lamb ji nañ jël lamb ji may lamb jàmm ah nañu defal lamb ji nañ may euh, promoteur yi jàmm waaw sinon man maa ngi woo mbër yëpp ak magi mbër yëpp ñu ñaan si kàttanu yàlla jiital si ki nga xam ne mooy doyen mag bi di Mbaye Gueye na ñaan ngir yàlla ak yont bi CNG nañu ñaan juge ak procureur nañu bàyyi nit ñi ko laa mu àggale yéenam si làmb ji waaw ak Petit mbay ñu bàyyi ko mu ñëw waaw ñoom Gaston ay bor topp lañ ne si lu nekk topp lañ si ñu ngi góorgóorlu nañ leen bàyyi ñu feex wala Macky Sall jël ay milliards financé ko ci jox ko CNG mu tëgg ay combat loolu mooy yoon. am na solo <laughs> mais léegi xam nga lu ma lu ma la bëgg a laaj parce que laaj naa la sànq ci làmb ji nangu waxoo ceeg man mais faw mu ñëw ci peer parce que seen diggante ak Balla Gaye cool da cee bëri actuellement. kooku moom kooku morom moom moo koy tontu. waaw hmm. di ko dégg léegi man Balla Gaye du ma moromam papaam laa. waaw te baayam tamit maa ngi koy gërëm parce que bi bi arrêté Boy Niang si suspension Double Less dafa jóge ba fii ñëw jàppale Boy Niang loolu nag loolu kenn mënu ko kenn kenn mënu man xaw ma lu ñaaw waaw te nit du fàtte démb waaw Double Less li mu defal sama doom maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla Double Less li mu def sama doom lu lu lu lu baax la Double Less lu am problème lu am mu jóg waaw maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér si barke yonent bi ñaanal may ko Mbaye Gueye ñaanal ko Birame ko mbëri mag yëpp ñoom mànga ak ñëpp yàlla may leen gudd fan ak wér ba ñu mën a téye làmb ji. mais Modou Lo ak euh, ciy wax. waaw ñoom yaay ku juum daanu waaw. Ama am na Ama am na bu daan Modou Lo. am ëpp na loolu. na loolu. waaw ah, ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko si carte bi borom. ndax ñun Pikine lañu Pikine lañu xam. kon pare ngeen ngir jàppale ko ngir mu daan Modou. Ah, waaw doomu Pikine la doomu Pikine la waaw ñun du yéene lu baax rek la ñuy yéene waaw lu baax rek la ñuy yéene nit sa waay ah, ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziare Serigne Faye la Serigne Faye ndaanaan waaw <laughs> waaw njalbeen njalbeen njalbeen njalbeen njalbeen nana taagu laali gulaali nana taa njaay been boy ñang baalo anaay sa yaay dégoloy sa baay sama ndukumaan sa yaay doonoy seex yirim dumbaan bala ko du maane seex yirim dumbaan bala ko du maane seex yirim dumbaan alaaji sama ndukumaan seet na baayam ba seex yirim boy ñang baalo gaynde ngi gaynde ngi waa Pikine déglu leen ma tey ma way seen doom ji boy ñang baalo ana sekay sa yaay mu zamilooy sa nijaay mu dasirooy sa nijaay dégol sa baay nuy naa ala gay naagoye done waal yee kule ñaay ngay yee nga ñuuri coor wule gay na goyo yee yoo jam faray baarang yaale ngaan yaay sama yaale ngaan digi joor na digi joor na yaale ngaan yaay ku ci man sa morom dang kay door boy ñang yóbbu ndam la teemule seere muule wayo sama doom yi daf ngay jaloore boy ñang baalo doomi bu dureer woo naa la am ngay jaloore yali ngaan njaay sama yali ngaan digi joor na daf ngay manoore waaw waaw sama gaay yi loolu moom mënu ko ñàkk bañ a wax di ñaanal sama doom yi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ñaana ko gudd fan ak wér la far ko ca dàq ko seytaane yàlla may kon ndam ci bàq Seydina Muhammad. Gris Bordeaux dégg nañ ko ci suba mu ne. Balla daa bëgg lu yomb. moo tax muy wër a gaaj booy ñaar mais ñoom ñaar mooy combat bi. moom yaak moom ne lu yomb lay wër moo tax mu lay laaj. waaye ñoom ñaar war a bëree moo Gris. waaw Gris loolu waxam la rek. maa ngi koy nuyu loolu xalaatam la rek amul benn problème loolu waxam waxu boppam la. Hmm. waaw parce que moom bu sànnee trac jox moom naa sànni jox ko mais comme waxul ak man amul benn problème. ah déet bu ne lu yomb la kañ ça veut dire que. waaw moom waaw loolu ah, ay waxu as lañ ñooñu ay quatrième as mais waxal <laughs> la dóor xeet dóoru ko Balla. non giri non giri troisième as waaw ah, giri giri bëre feeg Balla Gaye xeex bu metti non giri bu doon dem seen rek bàyyi li ngay wax bilaay trois avance sama grand waaw temps yooyu temps yooyu temps yooyu Fadel ma boy ma ne moom gis nañ ci armeel du sec du sec ñu koy ñaanal yàlla mënu ma xale ko àjjana gis nañ fa mais tey pourtant giri na ma ko man gis naa giri man Senelec nga ko gis giri man ah da bu yàggul non gis naa ko ci ci ci enterrement bi ñoo ànd ñoo ànd ko moo tax la ma giri troisième âge noonu nga ko gisee actuellement man maa la wax loolu kon pare na ci làmb. ah bu pareegul de waa cege. lu yomb de yomb de la la jàppe nooy neex. Eh, waaw loolu la jàpp amul problème. nooy neex de la la jàppee amul benn problème da jàpp loolu. da jàpp loolu moom am na wax bu mu wax. Hmm. nee na da ngeen a ragal moom ñi mu tafaatin. kat moom. burxaan burxaan ñemul tafaatin wala boo ñaan yow wuulu wuula ak tafaatin. doo ah, wax loolu doo wax loolu doo wax loolu doo wax loolu dafa ne moom. waaw ñemul tafaatin. waaw moom la. yow ñeme nga tafaatin mbër la champion la. ñeme ko lu tax dégg naa moom it da nga koy wër de. non non ñemewu koo laal de. non non non non non man wër ma at yëpp yaa ngi koy wër di ko war waga non non man wër ma kenn. Hmm. man man bëgg naa nag ci làmb bu bëreeg champion yëpp parce que loolu mooy carrière bu baax nga bëreeg hmm. champion yëpp. Hmm. yàlla xam na ne bëgg naa bëreeg champion yëpp boo amul Balla Gaye de boo am baax na. boo amul Balla ku ma am baa na. loolu moo jeexal wax ji ma am lamb bëgg suñu combat maa yow promoteur dox damay bëre yow yaa xam koo wax ci Gris lu tax sànni woo xeer Tapha Tine comme Gris ne nga trois parce que sànni wu ma xeer sànni ah sànni wu la Tapha Tine kay li mu wax booyi ku ko ci jëta lay nappaaje non non Tapha non Tapha la génn non Tapha du wax ci moom ah, Tapha Tapha sibul du ma wax moom non non sibul du ngaaga sax champion la mais dama ne la comme moom waxuma comme moom waxul ci man non li mu wax kay leer na nappaaje. xam man ku xam boo ñaa xam ne dëgg-dëgg damay jox mbër yëpp respect mais képp koo xam ne génn nga sànni ma xeer dépassé ma samay bord ma dox la sa ma wax la sa wax ma wax la sa bopp. mais waa këram ak koo doon. Bada John ma koy rek ñëpp. waaw ah, Bada John sama père la moo wax na la ko. Ah, nee la boo ñaa sama fils la. comme maanaam moom bëri naa Pape Sène daan dem dem seeti ko ah, place am mu may ñu xaar. ba tey daa jàpp ne da nga ko ragal. non non ragul ma kenn. Euh, euh, waaw waaw mun na mun na mun na bañ a doon palmarès xam lu tax parce que moom ñu mu bëree bëriwu maa ñoom moom bëri naa Yékini Yékini ñu mu bëree Balla Gaye bëriwul ak ñoom li muy def ta preuve am Tapha Gueye ñu li muy def ta preuve am parce que moo ko njëkk ci làmb comprendre moo ma njëkk ci làmb ñu ma bëree bëree gu ma ak ñoom wala ñoo xam ne mënu maa bëree parce que bàyyi nañu sax comprendre nga loolu mënu par foofu palmarès mënuñu boole li ñuy boole déglu ma garab la ci kaw fa lay fekkante li ñuy boole mooy dugg naa këram te dama fa yàgg teg fa sama tànk waaw am lu ma fa def bu baax nag buñu doon lim fi bi jógee de am lu ma fa def bu baax te moom mooy gaynde kër gi bi yoon boo dellusee doo teel moom mooy gaynde kër gi lañu wax la nag moom merci loolu moo ñu boole ah? loolu moo ñu boole waaw booy ñaa nga hmm. bëgg combat bi amateur hmm. yi tam promoteur du la seet mbaa doo aj combat xam ne lamb non lamb du ay na foofu hmm. su fekkee ñuy aj yooyu ku ne da ngay xool li la arrangé rek nga waaw ku ne da ngay nga bëri nekkul ay aj comprendre nga ku ne da ngay xool loo arrangé parce que lamb fi mu toll xam nga dëgguma ne nag combat Boy Niang ak Balla Gaye ko a dox muy tagee ci Boy Niang parce que dafa lu mu jugee xam nga lu mu jugee xam nga li nga ko war a fay noonu la quoi lamb noonu lay doxee mais ñu lamb lañ fi nekkal moom wax na la ko nee na lamb dundal na ko dafa war a dundal lamb mais ñu ñëpp ñoo war a dundal lamb jàpp ci pour lamb avancé jàpp ci pour kase yi gars yi bëre comme li ma ko waxoon li ma doon plaider noonu laay plaider dama bëgg mbër yëpp ñu bëre suñu génération Sa Thiès Garga Mbossé Malick keneen ak keneen ñu bëre parce que loolu moo yoon gur am combat keneen moom dana ragal nga non bàyyil foofu yaa ngi dégg ku nekk xaw ñooñu am combat bëre comme daan nga loolu moo naaj lamb dafa war a dox quoi noonu la demee mhm. léegi nag euh, am na loo xam ne ni mënuñu la ko bañ a laaj mhm. parce que Pikine nga dëkk Ama Baldé jël na combat royal mook Modou Lo loolu loo ci gis waaw amaa may ñëw foofu maa ngi nuyu sama mag ëmma waaw ñu ngi koy ñaanal mu ñëwaat carrément di wax ne champion la lamb daanu ci la bokk moom Tafatine dégg naa combat la nag la wax ni lamb la champion la lamb daanu ci la bokk champion bu mu daanul yaa ngi dégg di ko wax mu génn Pikine bëggee nañ ko gars yi bëgg nañ ko duñ a moom suñu grand mu jàpp bu dëgër xam ne làmb la comme naan nga Modou Lo mi ko daan am na amoon na fi defet keneen ak keneen xam nga ku ne dafa ñëwaat liggéey ñëwaat suñu grand la ñu ngi koy encouragé di ko dooleel ko wax mu ñëwaat mu génn ci gars mu bokk xam ne ci la bokk comme naan ko waxee am na combat ñu ngi koy ñaanal ndam la mu liggéey gars yi nañ ko jàppale nekk ci ginnaawam jàppale incha allah incha allah incha allah boo ñaa bul jaaxle man loolu moo nekk sama communication commencement ba léegi amuma benn xaar ma yàlla ak benn mbëru Pikine ñoom samay frère lañu kuñ ci gis dañ ci waxtaan ku ma soxla pour jàppale combat dama ciy jàpp dama ciy takk lépp même soo ma ci woowu sax dinañ ci jàpp en tant que Pikinois loolu moo naaj te loolu def